bismillahi rahmaani rahim aousubillahi mina sheytaani wa rahmatullahi wa barakatuhu yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen balu aq di balu aq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di jiital sëriñ Baye Cheikh Awa Balla Mbàkke mu Cheikh Amadul Fadal ak sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma di nuyu sëñ Abdou Lahad maam Asta mi nga xam ne moo jiite commission sociale ak sëñ Abdou Lahad Bousso Mokhtar mi nga xam ne mi ngi bokk ci secrétariat yi jiite liggéey bi su ngeen gisee jataay bii nag ci jataay yi waajal koor gi la bokk muy liggéey yu am solo yi nga xam ne sunu bokki taalibe yi dañuy xam li war ci barab bi ñuy njëkkante ak koor ngir indi ko bala agsi Euh, jataay bii nag bokk ci jataay yi am solo yoo xam ne euh, taxawaay yu rëy a la ndax su ngeen gisee kopp yi nga xam ne mi ngi fi ab liggéey la boo xam ne euh, waa Italie yi nekk Brescia muy Pontevico kër Sëñ Tuubaa gi nekk Pontevico ak Brescia muy jëwrin ya fa nekk ñoom sëñ Maxtaar Kanji ak ñoom sëñ ak ñi koy jàppale ci liggéey bi waaye ci taxawaayu ak coordination sëñ Xaadim Mbay mi nga xam ne képp ku yàgg dem foofu ci kër gi xam nga ko muy liggéey boo xam ne nag wax dëgg yàlla niñ ko doon waxee barki dem bu ci liggéey bi rek suñ Cheikh Awa mii moo ko sos ci ab jataay xam naa su ma ko joxee kàddu gi dana leeral naam sosoo waaye ni ma ko waxee rek euh, moom yàlla dafa dogal euh, li jumaa ji ak liggéeyu daayira Muxaddamatul ma ñor ko lool mu ci taxaw taxawaay yu rëy rëy rëy te lii firnde la ci ndax bokk na ci ma nee xam mbooloo mi fi doge di ko xam ci mburu waaye kopp yi muy case azitec yi boo ko boolee koppi ban yi ñuy génnee par jour danga koy mën a nattale mbooloo mi nga xam ne ñoo fi ñoo fi doge te niñ ko tàmbalee woon euh, yaakaar naa lim ba àggutoon fii te te ren jii indi nañ lu tollook cent cinquante mille kopp muy téeméeri junni kopp ak juróom fukk loolu jàpp naa ne euh, mën naa am njariñ lool ci biir koor gi ndax gis ngeen ne su ngeen fi ñëwee su mbooloo mi bëree copie ban yi ñu am amuñ ci lu lu lu ëpp mille mille huit cent maanaam matul deux mille kon liy mottali nit ñi li ñuy naane café lépp ci copie yi lay doon loolu nag kon lim biñ ci biñ ciy jariñoo par jour euh, lu bari la loolu nag bokkut ak yeneen naan yu sedd yi ci des yooyu yëpp te yii ñoo koy ñoo koy ñoo koy jariñoo te li ambulance perdu la ñoom nag ñu façon at mu jot ñu jënd ci lim bu rëy rëy ngir indi ko lu jiitu koor gi jébbale ko kon jataay bi looloo ko waral su ko defee kon dañuy jox suñ xaadim mbay mu ubbil suñ Cheikh Awa Balla leeral liggéey bi su noppee ñu jox suñ Baye Cheikh mi nga xam ne liggéey bi moo ko sos moo ko tàmbali mu leeral suñ noppee ñu jox suñ affaire mu tëj kàddu gi kon suñ xaadim bisimilah. rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit bokk taalibe yi ñu leen di siyaare tey njéggalu te dog ngante bu baax ci lii ñu ne def lool naa damay wax rek ne ñu teew ci. ak Abdou sëñ Abdou Diop ak sëñ Mahmadan Diané ñun nag liñ ciy wax rek weesuwul xam naa dañ fee teewal mbooloo rek nañ war ne teew nañ ci seen jëmm teewal nañ leen fi ñoom waaye liñ ci war kon wax lépp dañuy bàyyi lépp ak sëñ Cheikh Obalo ndax buñ ci amee bunt bi ba ci dugal suñ dara rek ta buntu taw feex boobu ci moom la jaare lam ci wax dañ koy doyloo ba dañuy gàttal suñuy kàddu di jot li siyaar mbooloo ma di sant ci bokk gi leen boole ci boole gi leen boole ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi tey ñaan ñu mbokk ci lu yàgg yàgg te at mënuñu def lu ëpp lañu defan daaw ñuy sant bu baax di jéggalu ci kàddu yi ndax amuñu fi kàddu ndax taalib yi moom dafay ah, as njëf su ndaw ndaw moom ah, daanaka di ca boole bari wax wax ju bari day mën a ñàkk kon nag ñun fam nañ lépp rek suñ kàddu ak lépp ñu ngi ci loxoy suñ Seex Awa Balla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. auzu billaahi mina alhamdulilahi wa kafa wasalaatu sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala bokk yi sëriñ Afe ñoo ngi jokk ci kàddu yi ñuy waxoon rek di nuyu mbooloo mu baax a baax di santaat yàlla bu baax ci jotaay yu mel ni nga xam ne yaa ngi ci dañ ko jiite ñu nekk ca di tàmbalee nuyoo bi rek ci nuñ ko baaxoo di wax ne sëriñ Xaadim ak mbooloo mi nga àndal eh, jotaay bi miin nañu ko ñu sant bu baax a baax suñu affaire tey eh, dëkk bu ñu wax Brescia ak ña ko wër Brescia ci centre Italie la nekk ci digg bi wala boog ci nord bi la nekk eh, lii ñuy wax fa la fa tàmbalee woon. démb juñu naa ne euh, fañ toogoon di waxtaan ca garab ga kër Sëñ Tuubaa ga si matu laa xaloon foofa fa lañ toog bi ñëw toogee di waxtaan sama xel na ci yar ma ne ah kopp yi de seer na Sénégal lool ndax boobu cent vingt cinq ko jënd wala wala trois maa di woo ñu ma ci ay bokk ñu ko nekkoon ma juñu leen ko daañu leen kat war nañoo seet nañ fexee ba li ñuy naanee foofa di jóge fii boobu kopp la ñu waxoon boobu benn sëñ Bass moom sëñ Mor Fadal Xari doomam moo génne juróom fukki euro na ma bàyyi sama di yaa ngi nii ma ne tàmbali la ci laa ñëw daal ah dégg kat du yom fii bokk yi fa newoon ñëpp bu soog Mbàkke ñoo fa nekkoon ñu newoon doon def yi fii ku ne jox ma ñi cinquante ñi vingt ñi ba mat deux cent soixante ma ne xool comme lu sama xaalis ma woo suñ xaarim mbay mii daa woo ko suñu am si xel daal la ma bokk yi kat ñoo daje lii bëggoon kopp yi jërëjëf ci waaja ñu tàmbalee ko lii comme koor gi des na nag 15 jours ci des nañ bàyyi xel déwén sëñ bi doy waar nii rek nañ bàyyi xel déwén suñ xaalis daal di jël xaalis bi téye bi mu duggee ci biir yàlla dogal muy seet ba xam ndax mën nañoo am kopp ci at mi murut bépp dañoo war a déglu wax ji ñu xam ne lu ñu war a bàyyi xel la ndax la jëm fii noonu la war a mel bi si xaalis duggee ci biir daal di jot mbokk ma sëñ Ibra Diop rahmatulah alayhi yàlla sabra doolu yërmande ak tawfiq euh, bi mu ko jotee mu ne ko ah man kat danaa sarse waaye damay sarse ci biir koor gi mboq mois boobu weer woowa day fekk koor gi des ay fukk fan bu sarse kon bu ñëw day fekk mu passé ñu xam ne ko waale kon baax na ñu ne kon nañ programme rek déwén balaa déwén ñu mën a am luñ defaree bi ñu defee noonu li suuti Ibra si Ibra yow waat ko ne ko suñu xaar yi soxla maa da woo Serigne Djili mais laa ko la yow laa woo suñu daal bi laa woo ko waaw jaata ngeen soxla suñ daa bi ne ma soixante cinquante mille kopp soixante soixante mille kopp bu ñu ko amee dina baax waaye daal sa xaar bi dugaat si biir waaye daal di woote ndekete moom dafay indi woon ay kopp daaw di ko jaay denc ko fenn mu des fa mu laaj soxna su ne ko am na fi nekk de ma ñu mu nekk soixante dix mille kopp nga am ne soixante nañ kopp lu mu ne kon di mille yi des dafa adhé suñu Tuubaa daan lu la koy jëli lu koy jëli lépp ñu ci barab bi toog fu ñu toog jóg fi ñun. lu koy jëli maa di woote euh, yaakaar naa ba baraat kii la war a ko mu ne ma mu ne ma mu ne ma euh, jëli ñaar ma nga jëm ma nga jëm oto ba oto bu xate xit nga jëm Ndakaaru. ma nga jëm Ndakaaru kon da koy woo moom mu ko man tam ma woo ko. léegi ma wooyee sëñ jëli ñaar ne ko jëli mu maa ngi bunt Pikine ma ne ko oto taxawal bul fre frenel boo xam nga fu ñuy jëli wàkk xaw ma ko waaye ma ko oto benn bu frère bul passé euh, benn minute benn kii ñu ko waxee benn mètre bu ko passé taxawal nee na mu def mu def ndigal la taxaw maa doon suñu ne ko ah oto kat ma nga jëm ma nga départ jëm Touba ma nga tolloo Pikine lu waay laajal waa ji ba xam fu bokk koppi nekk bala moo sori sëñ bi lu gërëy waar bi mu laajee waa ji fi mu taxaw bitim nekkalo ci lu koppi nekk xeex baal waaye leen waaye lay def nga def rek ma ne ko xarit ne nee na mi ngi ci buntu Pikine ma ne ko buntu ne ko mel ne mu ne ko ma wax ko mu ne ma mooy bitig bi am saa kii benn saa bu bu bu kii bu bu vert. Mm-hmm. ma ne ko ma ne ko gis xoolal sa côté ban côté mu ne ma côté gauche bi fee bett na le na xool dina seen mu seen waa mooy bee am ñu bindi xaw ma lan mu ne waa boobu la. nga xam ne bu romboon foofu moom ñu ne sëñ bi nangu ko. waaye dafa tolloog sëñ bi direct fi ñu tolloog ñaar. nga xam ne kopp yi keroog fañ toog di waxtaan ñun la sëñ jil ñang daal dugg ne jël kopp yi def ko ci avant ñu jóge ci barab ba kopp yi man na ba ñëw Touba ci yéen liggéey bi suñu Touba nangol lu wér la moom waaw ndax bi nga koy wax booba ji nag ma ngi dem ma ngi dem Dakaaru ko ñun te wax ak mu ko fa toll mu ne maa ngi Pikine moom à ñëpp keroog kenn waxut loolu noonu tàmbalee woon ñu jël ñu jël soixante-dix mille kopp ya indi ko ci bis bi nga xam ne ba takkusaan jot mi ngi koy wax foofu deux jot na Italie avant kopp yi ñëw na Touba te xalaat la woon rek ci laa leen nag liggéey bi suñu Touba nangoo ngi nii kon liñ ciy wax bëriwut jëletu ko maanaam liggéey la boo xam ne moom koo xam na mu tàmbalee da nga xam ne lii at mu jot day gën a bëri yaakaar naa at mu jot ngeen yokkaat waxaat su soixante mille lañ commencé woon yaakaar naa deux mille lan la deux mille treize quatorze la hmm? léegi ñu ngi ñaa ñu ngi ci cent soixante mille cent soixante mille soixante mille ba cent soixante mille déwén mën naa plus loolu kon nag dama waxoon rek liggéey buy daw la ñun nag xam naa suñu xel guddut waaye ñu wax topp ci rek comme moom du taxaw moom ñu tam nañ dem rek ba yàlla def la def ñun te yàlla na yàq lool te yàgg ba ñu ma waxoon dem rek ñuy wóotu daal dañ fexee ba boole ci mag ñi rek moom bu ko waxee moom mi tamit taxawaay booy taxaw woo bokk yi woo waytaal yi ba léegi nii waa Jami dañ ko jël boole ko ci liggéey bi si tubaab daanaka yaakaar ne doolu laaj léegi laaj duñ dañuy def mat bi joxee rek ñu génn ci kees gi yónnee kon loolu moom liggéey la boo xam daal mi ngi nii moom liggéey suñu tubaab bu mu nangu la man tuut naa nag ci wax ne suñu tubaab nangu ko waaye ku nekk am yaakaar te yàqin dafa wér looy toppatoo ci benn barab toog fa du jóg mu nekk loo xam ne lii lu jafe la ñu waroon koo jën Italie di indi kenn ko jën ni am naa ko Sénégal ñu ne ko yóbbu ka koy jël si taxaw fa mu koy taxawee mu jàkkaarloo bitig ba loolu moom mënta am miracle bu ko gën a lu nangul ko mën a wér bu ne koon ma nga ma nga biir Pikine mu daw dem foofu jëli ko ñu ne ah mën naa am coïncidence la waaye fu mu ne ko taxawal bul buusi foofu dama ko nepp rek dama ko yëpp ndax li mu doon ci man mu waa dem bàyyi feneen naa kon mu ne ko daani si xarit fu kopp yi nekk moo suñu Ibra Diop promoteur lay mu ne ko mi ngi buntu Pikine ndege rek fi siñ ji ni taxaw ak kii bi ñu jàkkaarloo loolu moom jarut taal yéex jarut waxaat leneen waaye taali sëriñ bi nangu na ko teg nañ ko jël nañ ko ci teg nañ ci loxo suñu affaire bi nga xam ne moo yor moo yor jumaa ji sëriñ daal ñoom ñii ñi ngi seere de xanaa ne les mat fukk at fukk at nangam fukk ah, kon fukki dee ko kon ñu xam ne kon liggéey baa ngi nii la ko jiitu nag sëñ bi ci biir Birisia boobu tey tamit damaa toog ci Birisia ci kër gi sëñ ji li may woo ma téléphone. da nga bàyyi ma ne ko ah mu ne ñu di soxla nañ ay matériel ma ko matériel lan mu ne ma lu jëm si kamera ma ne ah caméra doon day war de ni ko ah, baax na suñu doom am suñu doom am na lépp caméra kii man ma seere mi moom laa woon ne ko man de jaaxal na mu xaat bi xibaar dañ may laaj caméra te boobu caméra amagut ba melugul nii benn boobu mu ne ma caméra yi mu soxla nag yónnee ma ko ci whatsapp bi mu jar cinq mille dollars yaakaar waaw cinq mille dollars la jar wala cinq mille euros dollar dollar ma xool ko daal ne waaye xaalis dañ ko defar kuñ defar na moom lu mën a nekk. aussi xaay wax na ko de mu xaddee xidma dañoo bëgg ab kamera caméra bi mii nii si njëriñu na ma ko. xool naa ko waaye day jar cinq mille euros la jar. waaye du du du du du daal du kaa nañ xool mu am mbokk moo xam ne man ba mu wax turam ci jamono jooju enfin lu jàll moom jàll na waaye sëñ Saam Jóob la woon yaakaar naa ñu bëri xamuñ ko woon ma Saam Jóob moo jiite kuréel ak xasida yi dama jéggal waaye wax wi moo ko dégg daal ne woo ma ne ma sëñ bi loolu ngay wax dama sañoon du jëm kaw. dana ko tax mu ne ma jëgal ñu waaye ni ko def tamit ma def la wax dox sama yitte bay ñibbi ba mu ne suba dem la ma téléphone ne ma kañ ngay dem la ko suba mu ne waaw kon léegi euh, danañ fexe ba du jotaat la. ne ñoom jënd nañ caméra bi bëgg nga tase ak man aéroport fay ko fay ko def lépp ñu ànd ñu defar caméra boobu ñëwee. jëbb naa leen ko fi la ko joxe fii mu jabaram yor nga xam ne ñoom ba kenn yëg ko Italie kenn yëgaatu ko suñ xaar yi ma xam ne dara suñ saam Joob moo ne bu kenn yëg dimbali ngi yàlla ko ko wax kenn ne moo ko wax ñoom jënd caméra boole ma kenn kooku ñëw ba aéroport Milan ba may peese la accident suñu si baal ma ne ko amoon ah, na caméra baa ngi nii ñu peese ko ñoom ñu fay la koy peese mu ñëw Dakar Sénégal ñu indi ko jëbbaleen ko moo fi jëkk ci caméra fii kon ñoom yàgg nañoo bàyyi xel ne sëñ bëgg na sëñ bi lu bëgg lu bëgg moom dafay fekk saa bëggal ko waaye nag nooy nooy nooy dox léegi loolu kon ñu dooleel ñaanal rek nag. Hmm? man man day jëf ci bàyyi la ndam la sëñ Tuubaa. waaw lépp mu ko kon dégg nga ma ne sëñ Tuubaa day jëf bu ne bàyyi la ndam la ndam la. donc donc sëñ bi waaw macha allah waaw kon hmm, seere seere moom lañ lañ man seere lañ man hmm. waaye ku lu lu ne weng moom da nga xam ne mbir mbir nii. waaw kon daal suñu xarim ci tuuti suñu affaire mi nga xam ne moom alhamdulilah mi ñoo ngi sant daal noonu sant daal def sant sant nag moom ku nekk xam na ngay sant mm-hmm. waaye xol laa xam ne xol laa sante ndax ba muy tàmbali booba lu ndaw lañ jàppoon mm-hmm. mu dem ba ak kémee bu ngeen bëgg ren laaj lu ngeen bëgg mm-hmm. lu ngeen bëgg ñuy wax ñu ne nangam daanaka man teew bi laa fi xam du ma yëg fi teew yi nii laay xam rek waaye fi damay jékki rek mënu ma ñëw na damay jékki rek ñëw na ju jot na sëñ jilaat wax ko di soxla waa di wax boktaar bi ñu génnee ko ñu jënd ko fi ngeen yem nag ñoom fu ñu yem yéeneen fi loo fu ngeen fi yem ñoom yéeneen fi yem loo ñoom kat dañ ne ma naa wax seen kàddu dañ ne ma duñu wax maay wax man seen kàddu kon nag man la góor ga waxoon rek ngottuma te bu ma sañoon am lu baax bokk ñëpp am na ko waxoon walla ci la nekk kon waaw kon mu woo kon léegi nag moom ñu ngi nii fu ñu yem yéen a fa yem loo kopp yi ni luy oyof la ci ñoom bu la ñëwee nga wax rek alhamdulilah yàlla na yàlla fi jàmm tefañ toog yox mbokk bu baax te sant te xam ne jëf ji moom ni ko nettalee ju sëñ Tuubaa nangu ba noppi la sëñ Tuubaa lépp mu daa sotti lu joti taw rek daal di ñëw amul lenn loo xam ne da koy soxla di ko di ko wuti léppam noppi na lu jawaram jot nag mu ñëw taxawaay bi xidma ci jumaa ji sax dafa jot mu ñëw am na ñu bari ñu ko yàgg ñu ko yàgg jàmbat waaye bi ñu jotee la ko sëñ bi def Kaba Fall nee na bi bi ñuy julli fii jumaa ji yokk wi nee na booba day fekk gën yi jigéen ñoo bokk julli ci yokk wi mu naqari ko lool nee na bi sëñ Abdoulaye bëggee ay basang yu dem ci yokk ñu ne Kab Fall moo ko woon sëñ ko sant ko mu wuti ko ba ñëw nag bég na sëñ bi bég na mu ko waaw mbaa yokk wi day jigéen ñi ma tax dana mu ne nee na mu ne ñu koy dindi bu jotee rek sëñ bi ko moo tax keroog kab dikkee fekk xel ba monté julliwut dafa jooy ba ñibbi waaw yi fi sëñ bépp ko noonu la moom da band buy tax buy tax buy tax ñu rek waaw lu jot rek mu def kon nag suñu yàlla suñu bon ñi teg suñu loxo ci bërëg bi ndax fokk bu dox waaw suñu bon ñi teg suñu loxo ci bërëg bi ndax ndax sëñ moom lu jot mu def ko bu ko fay yow yow ñu ci tudd fekk sa yow niw ci waaw lépp mooma waaw waaw moom léppam daa sotti mor alhamdulilah rabbil alamin yàlla na suñu Tuubaa nangu suñu teel bi te bañ ci gis seen bopp dafa dëgër gi teel bi sëñ Tuubaa ak taalibe nag dafa jafe sëñ blaat nee na li doomu adama am muy alal ak doole man ko ca ñàkk tax mu am ko suñu borom koy tafeex leen kon nag sëñ bi ñaanal suñu borom tafeexam waaw ñaanal suñu borom tafeexam waaw waaw ñaanal suñu borom ko rek amul bokkul amul jéemul te xaw ma jóge wala xaw ma dara mu daal ñaanal suñu mu daal ñaanal suñu borom defoon tafeex rek ñu sañ nañ loolu sañ sañ sañ ngi koy sàkku waaw koy sàkku jërëjëf jërëjëf sëriñ bi sëriñ Xaadim Bay sëriñ Bay Seex Awa Balla kàddu yi am na solo lool ak kàddu yi si ñaafe kon mbokk yi ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo aju ci jamiyat taxawun ala taxaatillahi wa rasul yi nekk Brescia yëpp ak Pontevico ak li ko wër ak mboolem koo xam ne jëf nga ci jëf ji jëf ji agsi na ni ko sëriñ bi waxee léegi jëf ji Sëriñ Tuubaa nangu la eh, kon ku ci jëf rek am nga taw tawfeex ju rëy rëy eh, sëñ Xaadim it ngi seereel pësteef boo xam ne jëwriñ yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ŋànk liggéey bi jam yu taawun am nañ ko ci liggéeyu kopp yi euh, tudd ci sëriñ Modou Mbaw mi nga xam ne moo doonoon jëwrin euh, ci li jiitu ak sëriñ Basirou Dia ak sëriñ Mbaye Dieng ak sëriñ Sam Diop mi nga xam ne moom la Baye Cheikh Babal doon tudd léegi ak mboolem jëwrin yi nga xam ne ñoo aju ci seen ginnaaw ñoom ñëpp euh, sëriñ Matar Kañ mi nga xam ne fi ne nii moo jiitee jam bi ñu ngi leen di beraluk cant bu baax di leen xamal ne liggéey bi agsi na yàlla na sëriñ bi nangu ko te ful ko te fay leen barakati xaadim rasul di beraluk cant it sëriñ Fallou Abdou Latif mi nga xam ne mooy imaam yi kër sëriñ Touba gi nekk pont wi ko ndax moom it ku sawar ci liggéey bi la ku ci farlu la lool eh, te am ci eh, am ci taxawaay waaw eh, noonu tamit dañ koy seerele Cheikh Mouhamadul Mamour bu Cheikh Mouhamadul Mourtada moom it wax dëgg yàlla ku farlu la ci liggéey bi te sawar ci te mooy jëwri ni kër googu moom it kon ñu ngi koy sant bu baax moom di ko ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu